ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ñi topp ci King Taalif histoire bu yéemee ngi nii mel ne kumba am ndey ak kumba amul ndey ñu ngi lay ñaan nga seetaan ko ba mu jeex di nga xam liñ ci bëgg a wax bu baax lu yéeme ngi nii di leen wax ngeen wéy di abonné ci seen YouTube King Taalif tey partage vidéo yi te di ko seem ñu ngi leen koy ñaan tey joxe ci commentaire ñu ñëw andi leen histoire man nag fi ma jaar ak sama yaay laa bëggoon ñëw daal di wax muy lu doy waar loo xamante ne dama ko daal di dund mu metti ma lool ci sama àdduna daanaka lu ci bare bari su may xalaat ci sama ginnaaw day doom lu ma metti lool ndax man dama dëkkoon ak sama yaay ak sama papa waaye nag sama papa moom ñaari soxna la amoon waaye nag sama yaay ak wu jëm wi ñoom taxul woon ñu daal di benn yoon dañ daan xiiroo di naayoo rek ba tax na ñun ñi nga xamante ne ñooy seeni doom daanaka demewuñ woon noonu mu doon lu ñaaw loo xamante ne nag daanaka képp koo xamante ne yaa ngi sëy war nga di moytu loolu boo noonoo ak ki nga xamante ne moom nga wujjeel wërta tax ngay noonoole doom yi loolu daal bari na ci dëkk bi lool muy lu doy waar lu ñaaw loo xamante ne nit ñi ngi koy def te war nañ koo daal di bàyyi. waaye nag ma nekk ak sama yaay sama papa day xëy liggéey ñun xale yi nag dañuy daal di jàngi sama yaay man rek la am ma doon benn doom bu jigéen wujjam wi am na ay doom. ñu nekk ci kër gi nag dama jërale sunu yaay yi waaye ñun xale yi rekk ci noononte gu metti léegi léeg sax boo xamante ne daan nan jàngi daanaka sama wujju yaayu ay doomam dañ ma daan dóor ci yoon wi te loolu xam nga ne jaaruwul benn yoon bokk benn baay ba pare daal di noonoo noonoon tegu metti gi lii moom àdduna dara jëru ko ci ndax lu ñaawa ñaaw la boo demee ba ñi ngay nekkal ci mbedd mi wala ñi ngay gis daanaka ñoo lay gënal ñi nga bokkal baay daanaka liy jëfin gënu ko ñaaw waaye li ma ci gën a metti nag daanaka dañoo dem ba mu yàgg ki nga xam ne mooy sama yaay yàlla daldi dogal mu daldi am feebaru xel boo xamante ne da koo daldi dal mu doon loo xam ne dama daldi jàpp lool te metti ma lool ñu nekk ci biir kër gi ak sama papa daanaka sama yaay xaw a tuumuranke lool ci biir kër gi ak li nga xamante ne moom moo ko dal ba tax na ki nga xamante ne moom mooy sama wujju yaay wi daanaka ak ay doomam lu ci bari dañ ma ci daan ñaawal lu baree bari naan doomi dof bi samay doomi baay su ma daan wax ak ñoom sax léeg-léeg dañ naan ma yow noppil amoo looy wax ndax sa yaay ab dof la mu metti ma lool sama wujju yaay wi sax bu ma daan mosa defloo dara léeg-léeg bu may xas damay wax naan ma nii rek nga mën a mel ndax dof moom dof rek lay jur mu doonoon loo xamante ne dama metti lool waaye li may doon doon gone may muñ rek te xam ne yàlla sunu borom ab nattu bu ko neex ku ko ci neex lay jël teg ko ci jàmm te comme mënuma ci dara naa muñ rek waaye it daan naa jooy guddi di jooy bëccëg teewul ma continuer nekk ci sama jàng sama jàng moomu nag ma ne bay boo ma góor góorlu ci comme yàlla jeexul situation yi sama yaay nekk xëy na su ma demee ba jàng ba am li ma bëgg yàlla mën na maa dimbali sama lépp daal di saafarawu ma mën a wut fu ma def sama yaay ma nekk fa man ak moom maa ngi naan xam naa ne loolu moom sama papa du ko masa nangu waaye nag yàlla mi dara tewul biñ demee ba mu yàgg sama papa dafa daal di noppalu bàyyi ñu fa man ak ki nga xamante ne mooy sama yaay mu gaañoo sama yaay amul fenn fu mu jëm ndax moom yaayam ak baayam kenn nekkatu fi te daane ko ñi ko jege waroon koo dimbali dafa mel ne dañ koy daal di daw ba tax na ñu daal di toog ci sunu kër sama kër papa rek mu metti lool ci man sama tante bi ma bunduxatal bunduxatal gu metti goo xamante ne moom laa dëkke woon ci kër gi li ma ci gënoon a metti mooy saa yoo xam ne dañu ma daan wax doomi dof bi soo xam ne génn naa jàng sax dañ daan wax samay moroom naan leen kii yaayam ab dof la da daan metti ci man ba dama daan wax naan man teemaa xaru daldi noppalu benn yoon ndax sama papa gaañu na sama yaay mi ngi nii daldi wéradi waaye wéradi googu nag léeg-léeg daka daan dikkal léeg-léeg du tax mu dikkal ko ba tax na li may doon doon ma mag mus naa dégg ñu ne am na koo xamante ne ku ko mën a faj la lool lool lool bi ma ko déggee ma daal di koy gëstu daal di def samay mënin ba ma demee ba foofu noonu daanaka damaa dem daal di wax ak sëriñ bi daal koy xamal suñu situation xamal ko ne ko man nag wax dëgg yoruma dara waaye nag li may dund ak ni mu mettee ba tax na mu doon ko baax daan ne ma baax na deel bu fekkente ne di nga man di jël si li ma lay jox baax na saa yoo xamante ne yàlla dogal na ma war faa dem ma daal di dem jërëli yi ma ko war a jox yépp daal di andil sama yaay léeg-léeg soo xamee ne sama tante yég na ko day daal di jël garab yi daal di koy sànni may dund ci loolu ba nga xamante ne sama yaay xaw naa amuk tan tuuti ma continuer nekk ci sama jàng kon naa sax duma xam dara ndax xalaat yi nga xam ne daan xalaat waaye teewul yàlla di ma dimbali saa yu ne di ma suturaal yàlla dogal dem naa ba sama jàng noppi yàlla daal di dogal góor gu baax te diine daal di may takk ku baax loolu moom nag mi ngi liggéey waaye moom sax moo ma wutal ci liggéey bu ma nekk may liggéey muy liggéey ba yàlla dimbali ñu moom sax ci jëmmi boppam moo daldi tabax kër goo xamante ne da koo may sama yaay ne ma nekk feek moom te bokkut ak këru boppam te maa ngi liggéey tey jii di sant yàlla bu baax sama tànt jooju nga xam ne moom moo ma daan reeta yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko dafa am bis boo xamante ne daf doon voyage yi far yàlla dogal mu daal di def soog bu metti daal di accident ñaari tànk yi daal di damm nga xam ne tey jii saa yoo xamante ne day def dara wala lu muy mën a def ci puus-puus lan koy daal di teg nettali gi ma koy nettali du dama ko yéene wala dara waaye dama bëgg doomu aadama yi xam ne lépp loo xamante ne yaa ngi koy leble wala ngay reetaan ni liñ naan sooy jéggi dex bul reeki la te féeg yaa ngi ci àdduna waragoo di ree kenn wala nga koy xas ndax yàlla sunu borom mi tege moom tamit li mu teg kii mën naa daal di teg lu ko raw ndax tey jii sama yaay mi ngi ci jàmmam bu baax a baax a baax mi ngi ci këram man maa ngi ci sama liggéey te kii nga xamante ne moo ko daan xas ak ay doomam ba tey jii seen situation taxagul ñu demee noonu kon lépp lu waay di yéene nit na doon lu baax te lépp loo xamante ne lebaloon nga ko xale bis bu màggee day am na nu muy demee su boobaa di nga ruus te gàcca dina la dal bu baax a baax kon nag lii mën nañ koo jàngee daanaka kumbaam ndey ak kumbaamul ndey te woy jur yi ak yaay yi bàyyi di féewale seen doom yi wala buñ noonoo jàpp ne seen doom yi war ñoo juboo àdduna amul solo benn yoon